sëriñ baa ngi lay dalal ci sa kër di la wax waaleykum salaam wa rahmatullah ndax yow man nga gan gu fi nuyoo nga fay ko man nga yit ku ñëw nga dalal ko ndax ci sa kër nga ñëw te loolu sëriñ bi du maye ci boppam dara di ko nangu rawatina nag loo xam ne mm. yaa ko dox mm. sa digganteeg moom muy lu yàgg nag mu xamit cër bi nga ko jox ak fi nga ko teg xam na ne kàddoom yemale kook dara xam na it lépp loo xam ne ma nga ca bu geestoo gis na la ca yàlla dogal it ñii nga àndal ñëpp di ak njabootam kii sëñ Modou Alima ko jur muy doomi sëñ Afe mm. sëñ Afe bokk maam Cheikh Anta Ndeye ak mm. kon ak njabootam la mm. maamam di sëñ ay dara ku ne xam taxawaayam ci dëkk bi soxna Rama Cissé mee nga àndal njabootam seen kilifa gi ñu àndal di soxna Ndeye Diop moo leen boole sëñ Mor Aan mii fi la dëkk kon day mel ne ak njabootam képp nga àndal ak yow sa jëmmi bopp kon ëppale wu leen ci kër gi dara xam na ne it jamono xat na fii ñu toll ndax ku ne xam ne fii réew mi toll <clears throat> am na activité yu bari yoo xam ne su xewee mën nañ caa bañ a gis ñañ ca daan gis ca du yàq dara ndax màggal gi moom ci boppam fii jamono toll moo tax fi mu ko daan àggale ci ak yëgle mu wàññi ndax xam xat-xati jamono teewut it xam na ne daje naag ay yeneen i bisi diine. waaye lu mu ci mën a doon jéggi nga xat-xat yooya romb bis yooya ñëw ci bis bii loolu tegtale ne kon bis bi sa bisa tegtale it nag kër gi sa këra kon nag bi ngay ñëw léegi nii dafa waxoon ne ab seex akub dongaa ci yam kuy indi addiya ak ku ko andi wut yam nañ ma may ma noppalu ndax ku ne xam ne fii mu toll bu dee recevoir ba nëga ni te li muy recevoir ni moo ñi koy joxe ñoo ci yam bu xëyee jox ko sëñ Tuubaa rek la ci def Eh, loolu bu nee sonn naa rek xam nañ na sonn na waaye teewut bi soxna nday ñëwee mataara njëkk woote soxna nday ñëw da ko ne sax nañ ànd ñaar ak ñett mu ne ko déedéet nañ génn ca saal ba fekk leen fa ndax fii kërama wala mu seet ña ko neex mu andi leen waaye duma ko bàyyi muy ñëw ba fii ñu naan kenn nit la àndal wala ñaar loolu kon xam ne cër bi nga am ci moom kon nag nee na mi ngi lay sant mi ngi lay gërëm mu ngi lay ñaanal yàlla it nag ndax xam na ne doomu mbàkke nga mbokkam nga te moom amul lu dul mbàkke kon lu la ñaanal rek mbàkke la ko ñaanal ngi lay ñaanal sun borom yokk say maqaama yokk say daraja ba lépp loo xam ne sa bëgg sun borom fekk la ci defal la ko ci barkeb Cheikhul Khadim darajey bis bi jërëjëf alhamdulillahi zim xufraani wal karami ثم سلاماني عاد ذا الخلق كلهم الحمد لله ذي الغفران والكرم ثم سلاماني عاد ذا الخلق كلهم الحمد لله ذي الغفران والكرم ثم سلامني عاد الخلق كلهم الحمد لله ذي الغفران والكرم ثم سلامني عاد الخلق كلهم asalaamaaleykum sëñ bi ñoo ngi lay nuyu di la ziar di lay yeggee nuyoo préfet Khadim Anne euh, nuyoo monsieur le gouverneur ak euh, membre gouvernement bi yëpp ak président de la république comme ni ko Khadim waxee xëy na waroon nañ fi ñëw bu yàgg ñëw nuyu si la ziare la waaye nag tey la ko yàlla dogal euh, ni mu ko waxee noonu la contexte bi ñu fiy ñëw dafa fekkoon vraiment événement yi bëri te département Mbacké moom ñëpp xam nañ ni mu bindoo waaye nag tey moom euh, ma waxtaan si woon ak moom ak préfet euh, bu fi nekkoon sax moom mooy ñëw waaye nag mu yebal ñu ñu ànd ak délégation bi nga xam ne xaadim euh, lim na ko ñëw pour ziyaare si la ñëw aussi pour sàkku si ñaan sàkku ñaan pour préfet sàkku ñaan pour département bi waaye aussi sàkku ñaan pour réew mi euh, di wax rek comme ni ma koy faral di waxee ñoo ngi jëm ci ay échéances électorales nga xam ne dañuy tànn njiitu réew donc bu ñu ñëwee bërëb yu mel nii nga xam ne bërëbu nangukaayu ñaan la dañuy wax rek sàkku ci yéen ngeen ñaanal réew mi euh, ci élection yi ñu jëm mu am ci jàmm am ci salaam képp ku yàlla dogal rek mu mu jiita réew mi mu nekk ki nga xam ne moo gën ci réew mi donc loolu moom bëggoon nañu ngeen ñaan ko waaye ñaanal aussi njiitu réew mi ndax bu amee jàmm rek réew mi am jàmm donc loolu moo nekkoon kàddu yi xam naa du gudd comme ni ko xaadim waxee rek tey moom programme yi bari na waaye nag munuñu woon a ñàkk teew euh, comme ni mu ko waxee aussi bi ñu yegee bés bi bi lettre bi egsee euh, lépp li nga xam ne war nañ koo def defoon nañ ko ndax woote woon nañu CDD instruire chef de service yëpp ku nekk ci domaine bi nga xam ne moom moo la concerné euh, pour nga gën a nga jàpp ci comme ni nga ko doon defee wala nga def sax li nga xam ne moo raw yeneen at yi euh, ñoo ngi sant yàlla nag euh, bi ñuy jokkoo ak Makhtar ci lu ci bëri daf ñuy wax ne am na ci yoo xam ne daal góor góorlu nañu ba li ñu jëloon ci engagement motale nañ ko kon nag loolu ñoo ngi ciy sant yàlla bu baax a baax di leen wax rek ngeen ñaanal leen ñoom tamit bu baax a baax a baax yàlla yokk leen ci seen liggéey mais aussi may leen wër ba ñu mën matale li nga xam ne euh, président de la république sant na leen sant na leen ko donc di wax aussi ngeen ñaanal préfet euh, muy Khadim Anne vraiment jàmbaar la lool bi mu ñëwee ci département bi aussi vraiment mu ngi ci góorgóorlu di ci bay euh, wàllam donc ngeen ñaanal ko bu baax ñaanal gouverneur mais aussi ñaanal membre gouvernement yëpp ak président de la république li daal moo nekkoon kàddu yi nga xam ne bëggoon naa bu ma ñëwee yëkkati ko ginnaaw bi ñu euh, leen sàkkoo vraiment ñaan ak di di leen ziar bu baax a baax donc maa di sant di leen gërëm salaamaaleykum wa rahmatullah mu ne fii moom préfet bu la fi yàlla indee nga nekk préfet ak nga yor ay responsabilité moo yàlla ci boppam la soob ci nga bokk ci njaboot gi. ndax njaboot kat. ndax njaboot kat. nga ci biir administration bi. waaye sëriñ siit. ay responsable lañ fañ nekk. kon bu ngeen jëflantee. bu ngeen jëflantee. yéen ak sëriñ si bu ngeen jëflantee njariñ rek lay doon. yàlla tere. yàlla tere. bu fekkoon ne seytaane dafa am. ci diggante ay famille. dañ naan rek nañ dem seet ñu mën a wax ak ñoom bañ maslaa. te loolu ay sëriñ lay doon. te loolu bu boobaa ay sëriñ lay doon. wala ay dëkkandoo. nee na waasiyan boo xam ne nag. muy dëkkandoo boo xam ne. mën naa wax ak yow ci jàmm. kooku. boo ko tàmbalee mën naa doon ab sëriñ. waaye it nag mën naa doon leneen. bu ko sëriñ bi lijjantee. bu bi lijjantee. administration bi. dañuy daal di noppalu. waaye nag bu ko sëñ bi lijjantiwut. administration bi. dañuy daal di am jafe-jafe boo xam ne. fan yi mujj. finalité ba du baax. kon nag. ginnaaw ñoo seq njaboot gi. Ah, liggéey bii ñu liggéey tey. baayam moom mii. ba mu koy tàmbali dafa toog ba mu yàgg mu ne mu ne man daal seet naa seet waaye ab murit bu bëggee ne ab jullit laa ca nekkut ci di liggéeyal sëriñ bi man njullitam nga def may jaaxal kon nag man fas naa yéene bu may joxee joxeeti àddiya danaa ci sédd loo xam ne dama koy yeesloo yeesal sama pas-pas ci yàlla yeesalaat sama pas-pas ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yeesal sama pas-pas ci Serigne tubaa su ko defee digganteem ak yàlla ak digganteem ak yonent bi ak digganteem ak Serigne Touba la dox seen diggante ci ay buum di buum yoo xam ne buumi njëkk rek la buumi teraanga rek la yoo xam ne fu ne mën nañ ko faa wax at mu njëkk ma defe naa ne ñetti million lañ dajale. mu yët ko Cheikh Abdoul Ahad mi fi nekkaloon Serigne Touba. ban jàllee. ba daaw ci gàttal ci trois cent soixante cinq million lañ dajale. daaw dajale nañ trois cent soixante cinq million dikk ne sëñ Muntaxa. lii de sunu addiya dañ cee boole nag ak almet almet gi li muy signifié mooy bu la neexee kosol xaalis bi rek taal ñun ñi ko indi suñu yoon nekku ci bu la neexee nga tabax ci juma bu la neexee nga maye la la neex def ci loola mooy ak bayliku te doomu aadama nag li feeg melut noonu nangoo woyofal boppam nangu ku ko yilif ngir lu baax doomu aadama ga matagut kon préfet nii ñu ko doon waxee léegi fii nga ñëw yaag bokkam yii ngeen àndal yaakaar naa ne ñoom xam nañ lu bare bari luñ def ci dëkk bi dañ fi defar rek ak bokk di fi fale di fi folle am na fi de ndax ñi njëkk falo fii yëpp kat jaar nañ fii jaar nañ fii ci Daaru xam nañ señ Modou Mamoun maa ngi koy wax barki démb Abdoulaye Wade leetar bi mu mujj bind sëñ Modou Mamoun nekk ci Grenoble def ko wax na ko moom Abdoulaye Wade man de sama waajur maa ngi fii ci Grenoble waaye li nga ma doon ñaanal ci njàng mi am naa ko ne ma ko bëggee kon leetar bii soo ma koy tontu man ngaa bàyyi ba ca kanam ndax maa ngi ci aw yoon takk sama bagaas ngir ñibb si Sénégal dama lay ñaan rek bu ma ñëwee nga ñaanal ma ma am place bu ma liggéeyee ba mën a teral samay waajur mën a teral Daaru mën a teral Touba lettre baa ngi fii sëriñ bi denc ab laay Wade ko signé 1956 kon nag loolu noonu fi Ablaye Wade jaare noonu la fi Senghor jaare noonu la fi Abdou Diouf jaare noonu ñëpp noonu rek lañ fi jaare kon fii dëkkub dëkkub jàmm la bu ñuy defee jàmm. di ko fi wax di waxee. yow nag sunu gan nga. yow nag doog a ñëw. noo ngi lay ñaanal. noo ci barke rasulullahi. ci barke nga am fi taraanga. nga ak ak yëkkatiku. goo xam ne nii. ak suufe dootu ko. ak suufe ca topp. ca topp li nga fi liggéey. ak ñi ngay àndal di liggéey. suñ borom jàppale leen. suñ borom jàppale leen. jàppandil liggéey bi. it liggéey bi. Mm, li nga wax itam. li mm, mm, diggante bii ñu toll. condition yi réew mi nekk. tiis na lool. muy diggante élection yeeg. waaye lépp sun borom mi moom jàmm sun na cee def jàmm mën na cee def jàmm mën na cee def jàmm ba kuy jiitu jiitu ci jàmm ñu ànd ak ci jàmm rek nag jàmm ak salaam rek xew fi rawatina nag yow ci sa suuf muy suuf administration bi. loolu yomb na yàlla lool. loolu yomb na yàlla lool. Hmm. jërëjëf. astaghfirullah sataral huyubi wala ahli huyubi wa mulki min alqami naqif dulun wa xal بي نور لم يسوقي ودي دمي خير من دوم فيا همخي أخل مستغفرا في الليل سأرغي أستقي